ngeen li xew après ku nekk da yoon yi ku nekk jënga su yoon los dem na fii Kader dem na fee. avec ni que avec fii lay mujj parce que pour dire vrai nit da ngay delloo njukkal tey Sénégal bu ñu demee ba tey série série télévisée audiovisuel tey jii nii am jéego àgg fi mu àgg tey jii nii. bu nekkee pour les séries c'est Café avec qui a révolutionné moo changer les mentalités changer la façon de faire donc aujourd'hui pour man rien que pour jukkal boobu rek ak delloo boobu ñëpp ñoo xamante ni ñoo nekkoon derrière. c'est que da ngeen a gaaw suur mu naan jukkal ak. non non en fait on parle de réalisation. waaw mais de projet de continuité. waaw euh, mais tey jii nii pour man dafa yoo xamante ni ay ay ay ay patrimoine lañu pour man waruñu même bu amee parce que rien n'est éternel loo gis am na ay mën am ay gàkk gàkk wala des tâches mais nañ ko war a jox dimension bi ci war. tey café avec tey jii ce que Leuze a fait Kader Boups euh, Yérim Seck et autres là ba café avec tey jii révolutionnaire le paysage audiovisuel sénégalais il faut ñu reconnaître ko après comme on dit ñu on était là-bas en tant que technicien en tant que stagiaire en tant que agent on a eu une belle expérience là-bas après comme on dit y a eu des choses qui sont passées yoo xamante ni man mënuma si prononcé wu mais ku nekk dem nga si yoonu bopp et man tax mun wax parce que tey très bonnes relations avec tous les toutes les personnes yu ma jotoon liggéeyal période boobu on garde de très bonnes relations comme euh, professionnelles mm-hmm. mais bon après comme on dit euh, xëy na série bu waroon am fu mu yem la mu yem fa voilà tey audiovisuel c'est c'est c'est c'est Café avec c'est ls vidéo haute c' est gelongal il faut ñu delloo nit ñi aussi jukkal ci loolu parce que ñoom ñoo changé le paysage audiovisuel de 2010 à presque 2017 2018 ba 2019 jaar nga ci ay euh, pàcc yu bëri mhm. tu as réalisé des spots tu t'es euh, t'as produit de des des des, des vidéos wala t'as t'as eu des conceptions mhm. est-ce que mën nga en résumé rek parce que CV moom dafa riche ndax naanaan lañ toogal fi mu nekk koo xam ne moom il a tout fait l'homme aux douze métiers comme ni ma ko waxee mais de 2010 rek mhm. balaa ñuy ñëw ci de 2010 à 2019 les réalisations publicitaires les spots Sogabek ne pas faire publicité poste ak ñeneen ak ñeneen waaw li comme j'ai dit bi ma j'ai créé une benn sorte de société de prod mhm. c'était on on est même parti en GIE compliqué compliqué ñuy sox ba en j'ai créé ma boîte de production audiovisuelle cinématographique, communication, marketing. Et j'ai commencé à démarcher, à gagner des marchés. Et il fallait commencer à faire de la publicité. Donc, euh, auparavant, j'ai fait des productions parce que j'étais la première personne à tourner une série en Casamance. C'était avec Bakayoko de Café, avec que je salue. Avec des maigres moyens, on avait fait quelque chose parce que l'Union Bourgogne, on est qu'à Casamance, vraiment, il a la paix. Nous donnons diffuser Bob, Bob Terre, non, Dao, etc. C'était ma première réalisation, vraiment dans le pour dire vrai. et ça a rapporté. non non j'ai dit c'était avec les moyens du bord donc vraiment c'était techniquement c'était pas bien pour dire vrai mais ñun c'était pas le côté technique c'était vraiment le côté jëkk ko def ñun xam ne ñoo jëkk a tourné bu daw à la télévision et aussi il y avait le message bu si am mooy wane ne fii am na jàmm après ça donc quand j'ai créé en 2016 euh, Synopsis Group qui est aujourd'hui une société de production audiovisuelle dans le paysage de l'audiovisuel et du cinéma ma commencé def des publicités donc j'en ai fait pour pas, pas mal de boîtes pour ne pas faire de pub et jusqu'en euh, on a créé notre première série télévisée muy restaurant Sap donc mu doon daw 2STV c'était une comédie pendant les ramadans bu doon daw à la fois à la 2STV doon daw avec Marodi aussi donc euh, pour xam naa nañ ci ñëw sa sama premier liggéey ak Marodi c'était pas en tant qu'acteur mais c'était en tant que producteur donc avec le côté euh, digital 2STV doon diffuser la partie euh, télévision voilà donc euh, c'est comme ça. maintenant maison de production bu mag Marodi. Mhm. moom ñëpp xam nañ ne télé yu film yu neex yeeg série yu. ndaanaan la ñu captivante yi ah. voilà ñoom bokk nañ ci ñi koy joxe. Mhm. lan moo la booleeg ñoom relation dañoo xam ne monsieur Fall moom il est bien mën na li muy def soxla nañ ko ci seen group mu ñëw parce que comme t'as dit. ñëwoo fa en tant que acteur mais dañoo soxla sa expérience moo tax nga dugg fa. dama jëkk ñëw en tant que producteur. Mm -hmm. avec sama maison de production. Mhm. et eh bien pour dire vrai Synopsis Group moo jiitu toutes ces maisons de production aujourd'hui je pense ñun en 2013 bi ñu jëkk créé avant Synopsis di ñëw Bourou Game di créé ñu ñoo jëkk créé même euh, série Tabaski ñoo jëkk am idée bi jëkk def production jëkk ko créé yàlla def peut-être partie projet bi antuwul woon. Mhm. ñu perdre si xaalis bu bëri c' était une perte de cinq millions. boobu en 2013 quand même ci jeune bi soo ko commencé des gens jeunes passionnés c' était difficile. teel ngaa yor de 2013 nga perdre cinq millions. waaw moom mais comme on dit il fallait ñu bëkk miir c' était notre premier projet test grand nature bon ñu bëkk miir ba xalangu voilà. mais teewul jugaat ngeen. expérience la woon boo xam ne tamit metti woon ñu jàng ci lu bëri. mais produire ñun bi ñuy taxaw di lancer wu boîte de production maanaam pour révolutionner les choses def naa bu passé LS2 ci boîte yi fi nekk bokk même les grandes boîtes benn jiituwuñu donc yàlla def bu 2017 bi ñuy defee resto saf sap fekk Marodi aussi commencé na vraiment marquer son empreinte ñu dem associé ak moom bu mu def division digitale bi. ku la ku la faw ku la c'est simple chez moi man ma trouvé les contacts de Mass. ah ñëw vers ñoom. oui j'ai appelé Mass je lui ai il a vu le projet il a intéressé on a fait des réunions on a signé un accord de partenariat et c'est des parties entre notre boîte ak Marodi okay. et yàlla def ba 2020 nag ñu soxla ma di l'ordre Ninki Nanka en tant que acteur boobu moom ñoom ñoo ma woo joué ci rôle voilà ma ñëw def casting bi fi ma defee casting ñu envoyé ko les producteurs les réalisateurs ils ont validé sur le champ et là loolu c'est avec quel rôle le rôle de Racine donc le méchant le l'acteur le plus insulté en 2020 au Sénégal façon <laughs> saaga mu nekk saaga nañ ma ko et ni ki nank nekk je pense que premier grand projet bu ma lancer vraiment sur la scène nationale et internationale parce que c'était sur à A+, c'était sur plus de dix seize pays je pense et une production qui regroupait aussi de grands acteurs de grandes actrices Orey Orey Niane Ibrahima Mbaye Thié Père Abdoulaye et autres vraiment mu nekkoon euh, benn baptême de feu euh, benn adaptation de roman de Soxna Benga. ok mu am si personnage bu amoon solo muy Racine. donc je pense que def ci li ñu ci waroon def jéem bokk mu neex ñëpp bien que j'étais comme on dit personnage bu la saaga ça veut dire que tu as réussi peut-être pour d'autres séries quoi. fa nga jaaree je pense que déclic ak ak di amee. Mm-hmm. mais après bon comme ni nga gisee j'en ai fait pas mal pas mal pas mal. waaw yu génn Sénégal yu fi génnul. ok léegi léegi yaa ngi ma yéen ak Marodi euh, la collaboration c'était amul woon ay yàq-yàq wala ay kii. non. c'était c'était sain quoi. ça fait ba léegi ma ngi liggéey ak Marodi. ba franchement j'ai jamais eu un problème ak ñoom. xaalis problème xaalis yi am. non je vais dire les choses telles qu'ils en sont. tey du ma ne problème xaalis parce que je suis un producteur avant ah je acteur je producteur. non man je parle pas producteur là je parle au l'acteur. nga xam ne day dem si signer contrat daal di jouer rôle ñu fay ko xaalisam. waaw xam na foofu dafa am benn problème buy am parfois comme je dis man de y a des polémiques qui se font mais man tey sama taxawaay en tant que producteur xam ni production doxee xam fi ngay wuti ji xaalis ni muy doxee ak schéma yi ni ñuy valider. ni xaalis donc man du ma mën a taxaw tey jii problème xaalis na parce que Mbawu di mosuma yoreel xaalis Mbawu mu mos a yoreel fay na ma ko. moo xam fay bi yéex wala mu gaaw fay nañ ma ko donc mënu ma ne am naa problème xaalis ak ñoom mosul am et sur le plan professionnel aussi il a toujours eu du respect dans le travail bi ma lié ak ñoom contrat bu ñu mësa set seq teg nañ ko ci respect exécuté dañ ko et toutes les parties ont satisfaites ci liggéey bi. d'accord tu es un mais Marodi daan na am problème ak yenn acteurs yi fayu ñu ma ak problème lii moo tax ma bàyyi lii ak lii en tant que acteur social. je parle mm-hmm. mm-hmm. wala mm -hmm. wala du collaborateur avec loolu duma ma accuser Marodi ci côté boobu yow de Marodi nga faral. non non je suis avec non non non non damay ñëw même ma ñëw su ma waxee di nga comprendre. Hmm. du ma accuser Marodi xam nga loolu fan laay ñëwee. Hmm. c'est en fait l'environnement bi ñuy évoluer muy aujourd'hui le paysage audiovisuel cinématographique dafa am ñu ko war a jël régulariser ko teg ko ci yoon. mooy ñan muy l'état xam na état bu tegee lépp ci yoon mu leer. Hmm. ñu xam ne producteur lii mooy cëram l'acteur lii mooy cëram.

Euh, tegoo tey ji ay barème catégorisation ba ñu xam ne aussi tey acteur boo xam. parce que vous ne voulez pas professionnaliser le milieu. non parce que bis boo non non boo leen ko defoon. ça va pas ça va pas vous arranger parce que règle yi ngeen du topp. non dañuy topp règle yi moom fa laa jëm si maanaam li tax du ma ne Mbarodi du ma ne Evenprod du ma ne Xaar Média wala keneen ñoom ils sont dans le rôle de producteur dañuy wut xaalis di liggéey xaalis ñoo xam ni ñu koy wutee ah que ça plaise ou ça déplaise à qui que ce soit ñoom ñoo xam ni ñu koy wutee. acteur bi aussi moo xam ne muy négocier contrat pour am xaalis mais xam ne dafa am métier bu ñu bëggee mu nekk une industrie dañ koy teg si yoon jaarale ko ci yoon. Mhm. mooy état daf ko war a assainir régulariser ko. ñu voté texte yi ak loi yi nga xamante ni tey jii nii euh, kii nañ ko décret yi ñu signé ko tey ji statut de l' artiste mu leer mu xam ne tey jii di bu wooyee un jaamaan amul wax xam ne minimum lii la war fay jaamaan et da koy respecté doo ma seetee dégg ay problème yoreel na ma ak parce que les contrats sont enregistrés à la direction cinématographique. lépp day jaar yoon donc boobaa producteur bi da koy protéger parce que kenn du ko xas. mais yéen doo leen gaaw a def loolu parce que doo leen arrangé. non tax du ñu arrangé. parce que vous travaillez dans les formels. ah non. si. nous travaillons pas dans l'informel. parce que gis benn par exemple un profil de soxna par exemple soxna gis nañ profil bi ñu soxla ci moom ab jàngul. cinéma xamul cinéma xamul nu ñuy jouer. ngeen jël ko teg. fay ko benn cinquante mille benn cent mille par exemple ne ko pour caché xam nga kooku mooy gën a neex a exploité. ki nga xam ne xam na milieu bi xam na fi mu war a taxaw. léegi damay ñëw foofu te tegal foofu sa baaraam. maa ngi ni taxaw. soxna moom lan moo ko teree moom bu ñu ko wooyee ne ko mu ñëw. bu fekkee dafa am yéen non. nit dafa am loolu ça amène un problème. gars dañu jàppee suñu métier bi foofu ak caaxaan du foofu du caaxaan c'est un métier qui s'apprend ak Torah da koy jàng ñun dañ ko jàng. continuer ba léegi di former wu aussi production dañ koy jàng yaa a des mécanismes aujourd'hui boo demee ci festival Dakar bi nekk daw actuellement y a des séminaires et des masterclass sur la production la ci chaîne de distribution bi comment ça se passe xam-xam la du tâtonnement donc bu soxna jógee ne damaa gis bëgg nekk acteur parce que moom dafa bëgg peut-être siiw feeñ ci télé am buzz wala nit ñi xam ko et cetera mais kooku bu ñu ko naxee moo nax. mais mon cher la des actrices. et des acteurs yi nga xam ne elles ou ils mhm. formation bi ngay wax amuñu ko. waaw gis na dafa am benn affaire bu am soxna si man je suis pas boo duggee si dara mën nañu d' accord ne tey jii nii peut être mën nga bañ a mel ni peut être euh, benn Rachid boo xamante ni xëy na jàng na ko nga ñëw dugg si bu fekkee na nga si bëgg a def xam-xam ba nga si bëgg a def métier def si carrière bañu nax la si ba gisee tedd ba si ba gisee dund da ngay dem wuti ji xam-xam wala boo ko xamul ay ah, y a am na ñu xam. ñu fi nekk nga dem woole ñu ñëw xamal la mais tey jii nii y' a beaucoup de gens qui sont dans ce métier pour du buzz. kooku bu ñu ko naxee moo nax boppam. d'accord mais man tey jii par exemple contrat bu ñu ma jox tey li may jëkk def mooy je prends mon avocat je lui dis wala sama conseil juridique lire le contrat. Mhm. donne-moi des conseils bien que tey jii nii en toute modestie je suis peut-être entre du métier je signe jamais de contrat sans l'aval de mon c'est ça en 2022 euh, da nga bokkoon ci série Laye jaara mu nekkoon série bu comique nit ñi xam ne comment ça s'est passé ton intégration ba tey collaboration ak Marodi la wala ñoo xam ne profil boobu yow bu ñu soxla woon yow yaa ko et ton rôle tu un peu sur ton boobu je dirais que c'est un pur hasard parce que j'étais pas destiné à faire Laye Diarra Marodi bi ñu may woo pour mu ñëw def audition parce que comme on dit euh, amul acteur bu mag bu ndaw bu ñu soxlaa koo fii dañ lay ñëw auditionné mm-hmm. voilà mm-hmm. bi ñu ma wooye c'était pour un autre rôle c'est pour un autre projet ma ñëw ci audition bi yàlla def euh, li ñu ma demande woon il fallait moom un peu d'humour peut-être ñoom ils me connaissaient plus du côté dramatique et cetera mais xamu yoon que j'avais que avant tout je suis un comédien et mm. j'avais des talents dans l'humour mm. yàlla def ma def casting bi gars toj xàqataay foofu ree